asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu leen ziar bu baax di wàccee ku nekk wàccuwaayam ah di leen wax na tey nag incha allah dañoo ñëw indil leen secret bii nga xam ne day jëm si wàllu protection protéger seen diggante ndaxte comme maa fi faral di joxe ay secret nop pour di defar diggante diggante nag bu defaroo ba pare wala diggante boo xamante ni leer na ne lii si yàqu la jëm te nga ko nga ragal ko. maa ngi leen ngeen def ko ndaxte tey ñu si bari tey dañuy ñëw fekk diggante boo xam ne nekk na ñu siy def seen ay misik wala ñuy séparer ñaari nit ñi nga xam ne dañoo bëggante nekk seen sëy di sëy da siy am ndaxte da ngay toog toog rek gis jëkkër ji commencé déconné di indi yu kenn xamut nga jékki-jékki jabar ji itam di def loo xam ne si ni tey ku ko gis dana xam ne lii yenwul maanaa dégg nga ah nag ma xalaat si moo tax nag ma ne xaaral ma jéem a fexe nu may defee dégg nga ba jëm leen a indil lii nii waaye lii dafa nekk euh, mbir moo xam ne nag neexut a expliquer comme ma leen di jox secret bi nii ndaxte yombut te itam dafa xaw a dangereux ndax day ànd ak ay reen te reen yi dafa am nuñ koy utee ak itam fuñ koy utee yu demee noonu ak tam yeneen yeneen yoo xam ne mi ngi si laxasu xam naa daal am na ay borom xam-xam yoo xam ne ay borom xam-xam la sax. ñoy gëna yomb waxtaan ak ñom ci walu bi ke ñeneen ñi waaw dafa dis te doy waar lool waaye ma ngi leen conseiller nak euh surtout suñu mbokk goor yi suñu mbokk jigeen yi xam ñu ngi sey wala ñu ngi am ñu ñuy nekkal bëgg seen digënté daal mu rattax ba nga xam ne rattax googu noonu kenn du ko mëna dindi waaw ndax nit dañuy jógee fé ñew yaq seen digënté ngeen xeexee rek di mbëkkante wala xeexee rek di werante di ciow ba seen sey ba wala seen digënté bobu noonu mën na nekk sax ay digënté ay xarit wala patron sax ak employé manam dal daal si ay digënté digënté bo ragal rek yaq yaq am fa wala dara am fa rek inshallah rabbi euh képp kum intéressé rek na ngeen ma def signe ci sama numéro bi nek seen écran bi numéro whatsapp bi bu ko defee inshallah rabbi dañ si joko. ñu waxtaan ci ñu xol naka lañ ci dimbalenté té ma lañ koy wax yéen ñëpp ñi nga xamanteni tay ñu ngi ne ci sey seen néegi ak ñi nga xam ñu ngi si ay diggante te bëgguñ diggante boobu noonu tabbi géej yàqu dégg nga incha allahu rabi bu ñu si jokkoo rek dinañ seet naka la ñuy def ba dimbalante si ak yéen incha allahu taala waaw bu soobee yàlla euh, ñu ngi koy defal ay nit nag ay nit ñu ngi yaakaar woo ñu comme man du ma leen koy waxee rek man du ma leen ko nëbbu man du ma sëriñ woote wu ko nekkuma ko waaye ku ñu soxla si ñaan rek yaakaar ñu si itam dinañ xool nu mu jaadoo ñu seet nañ si dimbalante incha taala waaw lii yàgg ya nañ ko def ay nit nag waaye comme dañuy def yenn saa yi macha allah ay nit eh, kontaan si moo tax nag ñu ne ah nañ ko indi rek wan leen ko wax leen ko te ngeen bàyyi ko xel diggante dañ koy ñekk diggante dañ koy defar jamono ji muy neexee sax nga koy gën a mën a defar boo bàyyee ba nga xamante ne këtt na jonn nga bëgg say jug bu koo régler fekk day fekk bay wéy nu mbuus nga siy dépenser sa xaalis dégg nga ñu lay siy nax te su boobaa Do ko bañ a ñàkk def ndaxte da ngay sës waaw waaw suñu mbokk jigéen ñi surtout euh, ñu leen di vraiment daal man moom xam naa ne euh, am naa yërmande si yéen surtout jigéen ñi waaw góor ñi moo xam naa ne ma amuñ problème waaye jigéen ñoo ne problème ku nekk lay téléphone sama jëkkër ji sama jëkkër ji sama euh, far bi nangam nangam ah yeneen yàlla jàppale dal. incha allah waaw kon mi ngi noonu tey lii laa leen indiloon rek képp koo xamante nag bëgg nga si ñu dimbalante si. incha allahu taala ngeen def ma signe sama numéro boobu noonu incha allah kon maa ngi fii di jox dig daje bu suba jàmm allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu fanaan jàmm